dikkati naa tey turbine yéen a kaay dee Cheikh Omar Anne la xëyee ni ko jox naa la siis yow Cheikh Omar Anne toogal fii ñu daal di waxtaan ci li nga xam ni moom moo di ay chiffres yoo xam ne daanaka gàcce la sax ci njàng meeg njàngale mi nga xam ne am ci ci réewum senegal ñu jublu ci l'école boo xam ne dafa war a tijji waaye tijji bee nar a perturbé kay turbine naan koon Cheikh Omar Anne dañ lay jébbal ab budget boo xam ne juróom-ñetti téeméer ak ñett ci milliards dañ lay jox yàlla sàkk jagleel ko nag ministère bi dénk njàng meeg njàngale mi lu toll nag fii ci réew mi xam ko juróom-ñett ci lekkool ak établissement kenn mënu leen jëfandikoo fi mu ne ci réew mi juróomi téeméer fukk ak ñett amuñu ay mur de clôture yoo xam ne moo mën a tax saay-saay leneen lu bon du am accès ci lekkool bi yéen kaay bi média bi naan kon Cheikh Omar Anne lu toll ci ñaari téeméer juróom benn fukk ak juróom ci lekkool fi mu ne nii ci réew mi amuñu ndox mu ñu naan wala it bu demee gaanuwaay luñ jëfandikoo Cheikh Omar Anne lu toll ci juróom-ñaari téeméer juróom-ñett fukk ak juróom ci lekool fi mu ne ci réewum Sénégal amuñu courant lu toll ci ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñett amuñu ay latrine maanaam daal gaanuwaay lanket naan kon fi mu ne li ñu wax ci lekkool bi daanaka dalul xel tiitaange daal daal na ci am waaye moom ministre bi daal dinay xamle ni fukk juróom-ñett ci mesure fas nañ ko yéene jël le soleil kaay naan kon mesure yooyee ngir njàng meeg njàngale mi ren jii am benn jafe-jafe moom moo tax ñu koy jël source a naan Cheikh Omar Andey ma ngay wax jafe-jafe l'école bi fi mu ne te naan lu toll ci ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñett ci l'école amuñu gaanuwaay foo xam ne mën na la daanaka mën na la fa ñu yégee seen bopp ndax nag ci àll bi la ñuy dem am mm. te loolu ñaaw na fas yéene nag soobu ci présidentielle bi Amsatou Sow Sidibé candidat la xamle na ko wax na ko war a bokk moom Amsatou ci candidature yi nga xam ne ñoo war dem 2024 24 heures yéene kaay naan maan moom Amsatou Sow Sidibé dafa bëgg nag soppi la nga xam ni moom la l'école bi di doxee rawatina nag ci njàng meeg njàngale mi Amsatou Sow Sidibé yéene kaay bi sam pub laaj ndax nekkul ñetteelu voie politique bu réew mi bëgg na suqali ndaw yi njàng meeg njàngale mi kaar leneen naan leen xale yi bu leen xaddi yéen daal tabb leen jigéen ci bu njëkk ci réewum Sénégal di ko am bu ngeen tabbee ba pare ngeen xam ne maam mën kay laas naan maan ka mën kay mooy Mahammed Boun Abdallah jonn ma nga xam ne nag dafa déggaloon président Macky Sall bañ koy woowee double bouton tay jii nag ma ni la déggal googee ay laaj mën na caa samp xel ci boppam tàmbali caa teey vox populi naan fi mu ne Mahammed Boun Abdallah Dionne maam booy jaaw Macky ngi leen di menacer lu am jom ci réew mi naan leen ña nga xam ne dañoo jël sama dogal daal di koy tegee na le ñoo ñu bokkatuñu suñu biir coalition l'évidence yéene kaay naan man en tout cas Aly Ngouille maam booy jaaw bu ñu joxee seen doole day mën naa miti lool ci Amadou Amadou Ba le regard yéen kaay naan kon beneen alliance ngi nii de diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne te lii it mën naa metti lool ba weesu lool ga ci kaw Amadou Ba turbine yéen kaay naan maan en tout cas Ba moom am ko sampul ca Grand Yoff fas ko yéene xeexal moom mooy directeur des carrières di Ibra Seck Ibra Seck ànd ak mouvement am di suqali Grand Yoff moom directeur des carrières ne Amadou Ba laa ngembul moom laay xeexal te fas yéene nag ci moom kenn moo fi falu te mooy Amadou Ba di candidat bu président Macky Sall tribune yéen a kaay naan man Pape Djibril Fall wax jafe-jafe nga xam ne mi ngi am ci gouvernance bu président Macky Sall waaye itam gouvernement bu Amadou Ba daal di xam le ni moom Pape Djibril Fall mbënd mi ci réew mi mooy saafara yi situation politique bi nga xam ne jaxasoo na lool mooy saafara xiif ak mar ci réew mi moom Pape Djibril Fall moom mooy saafara si Walf Quotidien naan man politique yaa ngi wax di defi discours lan nag la ñuy xëccoo ci réew mi ndax dëgg-dëgg bàyyi fi seen ñax ak seenu coono taxul ñoom politiciens yii di daw ci ginnaaw réew mi mi tribune yéen a kaay naan maan waxtu waw nga xam ne ñu ngi ñuy dig suñuy doom daal ñu ngi jeex ci biir géej gi lu toll ci ñetti junni téeméer ci ay màngaankat daal dina ni saraax biir Espagne xale yi mel ni ku naan leen ku digga yaa xam ñun dem na ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jaam te yendoog jaam